wane itam almutanazzahu féexlukaay ba la promenaatukaay ba amaamal bayti nekk na nekk na ci kanam kër ga mbaa néeg ba amaama joobu dërfu makaan la boo xam ne ci la wax bi daanoo kon ba tey mooy dërfu makaan te lamboo xabari almutanazzah ba tey boo ne assaaxa taxatal wisaadati montal baa nga ci ron ngi gannaay la kon taxatal wisaadati ci la wax bi daanoo moo xabar assaaxatu boo ne arraxat nooflaay nag day ne baax da boobu moom tërfu samaan la ndax dañuy jublu gannaaw waxtu wa nga sonnee la nooflaay di dikk neex nga xam ne kon day mel ne baax da boobu foofu moom tërfu samaan la fi ndax baax da léeg-léeg mu tërfu samaan léeg-léeg mu tërfu makkaan ba tey nag foo fekk zaraf muy makkaan ba samaan dañ koy wax sifu jumla nuru jumla doonul jumla waaye da koo nuru alqaidatu lii mooy takk-takk bi ak taaniyatu bi aj ñaareel baax dal mi at ci gannaaw téeméer kama yekkoon ni kii nekke xabaru mutare xabari mutarama mufradan di mufrad yekkoon dana nekk itam jumlatan di jumla fi'liyatan bi ko jug fi'al aw jumlatan baa muy jumla ismiyatan bi ko jug lisim aw shibha jumlatin baa boog muy nuru jumla ay li mu ci namm zarfan tarfu aw jaaran wala arafu jar wa majaroon ak luñ jar takk-takk bi mooy ni nga xamee woon xabari mutara muy nekk mufrad doon benn baat ci misaal ba tey xamal ne xabari muftara mën naa doon jumlay fixal mën naa doon jumlay lisim ñu bañ a fàtte ne jumla boo xam ne fixal a ko tàmbali ni ki tuqaw yi alxadalaat mooy jumlay fixal jumla boo xam ne lisim a ko tàmbali mel ne ba nga ne almuhazzabu teg ci asdiqaa'uhu kasiroon mooy jumla lisim kon xabari muftara mën naa nekk jumlay fixal mën naa nekk jumlay lisim ba tey mën naa nekk lu nuru jumla nuru jumla nag dañoo jublu rek zaraf ak jaaru ma joroor dañoo aada woo def xabar ñaari xaaj xabar bu nekk mufrad ak ak xëyru mufrad jublu ci xabar bu nekkul mufrad takk-takk bi nag mooy saa yu xabar bu nekkee rek jumla moo xam jumlay lisim la moo xam jumlay fixal la mbaa mu nekk zarf mbaa jaarun wu majruurun dañuy wax boobu xabar xëyru mufrad du mufrad waaye bu fekkee doonul kenn ci yooyu rek donte day tës ne mbaa muy jam itam du tee jàpp ne boobu xabar mufrad la du tee nag boo ko dee iraab moom itam nekk tës ne moom xabar ba da nga wax ne tës ne la bu dee jam da nga wax ne jam la waaye du tee seen teqale la ñoom noonu lañ koy teqalee alqaidatu attaniyatu baxdal mi a kama yakkoon ni kii nekke xabarul mubtada yi xabari mubtada mufradan di mufrad ba tey yekkoonu dana mën a nekk jumlatan di jumla fi'liyatan bi ko jug fi'al aw jumlatan wala muy jumla ismiyatan bi ko jug lisim aw shibha jumlatin wala boog muy lu nuru jumla ay limu ci namm zarfan nekk zaraf aw jaaran wala aj jar wa majruran ak lu ñu jar kon xabar yi mubtada ni mën a nekk mufrad te buñ nee mufrad nag mooy xabar boo xam ne rek nekkul jumla nurul jumla ndax doonte day tës ne itam mbaa mu jamhu waaye nekkul jumla nurul jumla dañ koy woye ne dañuy woye boobu xabar ne mufrad la kon nag xabar yi mubtada ni mën a nekk mufrad ba tey mën naa nekk jumlay fixal mbaa jumlay lisim mbaa boog mu nuru jumla te mooy nekk zarafu mbaa jaaruk majroor alqaidatu attaalisatu baxdal mi ah yajibu dana war an tashtamila bu làmboo jumlatul xabari jumlay xabar ja xalaa damirin ci damir yar bi tuxaa ba dana ko yeew bil mubtada yi ca mubtadama su fekkee ne dangaa def jumla muy xabar fa war nga caa def damir boo xam ne day dellu ca mubtadama nga xam ne moom la jumla boobu di xabar mu daal ñëw ci tamarin njëkkee at tamarin al awwal xayin na nga ràññee fil xibaaraati ci wax yi al aatiyati aji dikk xabara kulli mubtadayin xabari mépp mubtada wa zukurte nga tudd nawxaxoo façon ba mu ne wax ji mu lay bëgg andil ay wax la sax waaye wax yi dafa jàppaloo na nga seet mubtada mu ci ne lan mooy xabaram nga ne lii mooy xabaram wax itam xabar ba ban façon la maanaam dafa nekk mufrad wala dafa nekk jumlay fexal baa daa nekk jumlay lisim baa daa wala dafa nekk sipp jumla te mooy doon saraf mbaa jaar ak majroor ak dubaabatu weñ minal xasharaat mi ngi bokk ci insectes yi mi ngi bokk ci gunóor yi al mu'diyati aji lor wa bararu wa bararu xaati lorom fawqa kulli dararin nekk na ci kaw bépp lor wa arjuluha ay tànkam taxmilu dana mën a yore al jarasima ay microbe minal marda tukkee ci way tawat ni ilal asiha yi jëm ci way wér ña wa ramadu wànnen wa alxubay biyu bi ñuy wax alxubay bii muntashirun aji tasaaroo la bi misra ci misra li xadami xinaayatil atfaali ngir ñàkk yittewoo gone yi bi tardi dubaa bi ci dàq weñ ya xan ayunihim wali seeni bët fa nadaafatul jismi setu yaram wa faidatuha njëriñam azimatun aji rëy la liman xi suqooti dubaa bi ngir aaye daanuk weñ ja al wacci ca kanam ga wal xaynayn ak ñaari bët ya wal wiqaayatu fegga min hu ca moom fil manasili ci kër ya ximaaduha sukkandiku kaayam daal taxatiyatul matxoomaati moo di muur ya ñi lekk wal mashrobaati ak ya ñi naan nee na weñ daa bokk ci xeeti gunóor yi nga xam ne dañoo bari lor lool daanaka mën nga ne weñ moom moo ëpp lépp ngaañ ak lor ndax weñ yi mën nañoo yor ci seeni tànk ay microbe yu baree bari fekk dañoo dal ci ku amee jàngoro dal ciy jële microbe yooyu dalaat nag ci ku wér dal koy teg xeeti jàngoro yooyu mooy li ñuy wax wàlle daal moom weñ gaaw na ci def ko lool jël jàngoro ci kee yóbbu ci kee am na sax wànneen bu ñuy tuddee alxubay biyu bari na misra waaye neen dara warlu ko lu may gone yi dañuy bàyyi weñ yi ñu dal ci seeni bët te duñ dàq weñ yooyu bu ko defee loolaay tax wànneen yi tasaaroo set yaram daal moom nee na lu amaam njariñ la ndax li ci ëpp weñ moom fu salte rek lay dal waaye fu set wecc moom mbaa lu ne xeet du ca faral di dal kon nag buñ fexee ba kanam yi set bët yi set rek xëy na weñ ji du ci bari la dal li nga xam ne nag moo gën a gaaw ci aar weñ yi ba duñu indi jàngoro mooy bu dee ci kër gi moom lépp lu ñuy lekk ak lépp lu ñu naan nañ koy muur rek ba nga xam ne weñ du ca mën a dal at tamrin attani ijhal kulla jumlatin minal jumali al atiyati xabaran li mubtada'in yunasibuha dafa bëgg jumla yi mu lay bëgg a wax bu ci nekk nga def ko muy xabari mubtada moo xam ne yelloo naag moom li ki yasbaxu dana féey filmaa yi ca ndox ma dane xëy ne artim saaxu jësik yasbaxu filmaa yi tuxanniyaani danañu woyantu ñoom ñaar bu la neexee ne almuxanniyataani ñaari waykat yu jigéen ya tuxanniyaani danañu way yu rafrifu dana rafrafi bi janaaxa yi ci yaari laafam bu la neexee ne attaa'iru yu rafrifu bi janaaxa yi nga def ko nag yàbb noonu danañu tabax almanaasi la kër ya ak yasi bu dana tëb xalal farisati ci kaw rabbo ne nga ne al asadu yasi bu xalal farisati farisati mooy rëbboo mooy la muy bëgg a jàpp yu daa fi xoona danañu défendre xan awtaani wali seeni réew yajur ran danañu diri danañ ñoddi alxajalata warukaay ba la neexee ne assawraani ñaari yëkk ya yajuraani alxajalata yaqtasidaani danañu économiser fi nafaxaati ci dépense ya maanaam ña ngay sakkantal dépense ya yataxarrakaani danañu yëngatu xindal maddaxi fa sàqami ga da ngay wax alfakkaani yaari ŋaam yi alfakku bi firi aw ŋaam boo ko tasniyaani alfakkaani yataxarrakaani xindal maddaxi yatabaaxadoona danañu sori xanir radilati walis caay caay tudd xilaan danañu dugal an nuura leer ga wal xawaa ak air ba yuhibbuha dana ko sopp abuha baayam nekk nga ne al bintu al muhaddabatu yuhibbuha abuha at tamrin at taalis ijhal kulla jumlatin min al jumali atiyati xabaran li mubtada'in yunasibuha dafa indi fii ay jumla lisim bëgg nag nga indi mubtada mu yelloog ñoom jumla bu ci nekk di jumla bi ci manoppi xabar mubtada moma azharuhu ay tortoram kathiratun aji bari la dik nga ni al bustanu azharuhu kathira ra'yuhu na seen xalaat sadidun aji jubla aghzanuha ay caram ay bangasam moriqatun aji saq la malabisuhum seen yere nazifat aji set lañu غلافهما سين كورتير جديد أجياس لا فناؤها التنب واسع أجيات لا التمرين الرابع اجهل دفل كل ظرف وجار ومجرور فيما يأتي خبرا لمطلع يناسبه التمرين الرابع موم دفع عندي أي صرف يتكو عن خاو باري دال أك جاري مجرور يخاو باري نلا كان كتي نك dang koy def muy xabari mubtada moo xam ne yelloo nañu ñoom ñaar baat bu jëkk bi mooy fi shabakati ca mbaal ma dik nga ne asamakatu jën wa fi shabakati nekk na ci biir mbaal ma ak bay na saxaabi diggante niir ya dik nga ne alxilaalu terute la bay na saxaabi ak fil xafasi ci biir kaaf ga mel na nga ne alxusfooru fil xafasi nga def koy ci des taxta aqdaamil ummahaati nekk na ci doon ndëggu yaay ya maanaam aljannatu la moo koy jiitu aljannatu taxta aqdaamil ummahaat nangoo sonal sa yaay gërëmloo ko dina tax am ajjana xalal maidati nekk na ci kaw taabal amashi ba dikki nga ne almalaaxiqu kudd ya xalal maidati nga xool nag noo koy defee fawqa xijarati muy firi ci kaw garab ga ak min doodasil xassi mi ngi bàyyikoo ci saxu xas kooku mi indi baatub alxariiru alxariiru bi fii sooy dafa am sax yu ko daa ràbb ñu tuddee doodasil xas ak amaamal qaadi nekk na ci kanam aji àtte ja nekk nga ne almuttahamu amaamal qaadi ak xalfal baabi niki alkalbu xalfal baabi ak tamarin alxamis axbir na nga xabar xanil asmail aatiyati bijumalin fi'liyatin munasibatin day andi ay baat yoo xam ne yépp dañoo taara fu ci nekk mën naa nekk mubtada bu bëgg nag nga def ko mubtada ba noppi xabare ko jumlay fi'al maanaam jumla joo xam ne fi'al la koy tàmbale nekki nga ne alfiilu yamshi bi bëtt ñay day dox dox bu yeex asuyaaxu touriste yi man nga ne asuyaaxu touriste yi touriste yi yazorona danañu wisite xaasimatana sunu capital asuyaahu yazorona xaasimatana nga def ko nag asharikaani ñaari way bokkaale mu ñaari partenaire ak ad darrajataani ñaari welo ak al fallaxoona ay baykat ak al mutadaarihaani ñaari way nuróonte waaye itam am na yax yoo xam daa mel ne togguñu ko muy al mutasaarihaani muy firi ñaari way bërente wala ñaar ñay aji bërente ak alxamaamatu petax ak almuhsinaatu way rafetal ñu jigéen ña ak almataru taw ak almuallimaatu jàngalikat yu jigéen ña ak tamrin assadis axbir na nga xabar xan kulli ismin min al asmail atiyati bi jumlatin ismiyatin munasibatin bi aji yelloo dafa indi ay baat yoo xam ne juróom rek lañ bu ci nekk taara mën a nekk mubtada mu bëgg nag ku ci nekk nga andil ko xabar boo xam day nekk jumla lisim bi yoon niki nga ne ak tufaaxatu pom day taamuha cafkaam xulwun aji neex la su boobaa taamuha xulwun jumla lisim la nga xabare ko ak tufaaxatu ak almadrasatu école bi niki nga ne almadrasatu école bi day binaauha tabaxam ba aalin aji yëkkatigu la lu kawe la alfuqaraaw way ñàkk nga def ko noonu alxaniyaat way diis ñu jigéen alwardataani ñaari fleur wala ñaari rose attamrin assabian axbir an kulli ismin min al asmail atiyati bi jaarin wa majrorin dafa bëgg daañu bëgg indi yëpp taara bu ci ne mën naa nekk mubtara nga indi xabaram def ko nag jaarun wa majrorin dik nga ne arri ataani ñaari pomo ya muy ñaari xatar ya man nga ne fi sadri nekk na ci dënd ba asamaku jën ya man nga ne fi shabakati nekk nañ ca mbaal ma fi shabakati al miftaaxu caabi nga def ko noonu al miatafu palto nga def ko noonu as sukkaru sukkar nga def ko noonu al xusfóoru picc noonu at tamrin at tamin أخبر عن كل مبتدأ من المبتدأات الآتية بظرف تطرف مناسب بأجي يلو وضح وتنكتكو في المكان تبرب الخالي هو بغتاي خبر بغي اندي دون ظرف بو خامني يل نا تي فانكوي تك ndax yi mu wax yépp mubtada ñëw na waaye nag tomb yo fusas dara nekk fa muy place bu widd bi ci ngay def xabar def ko muy taraf boole ci niki attulooju nees ya nga ne fawqal jibaali nekk nañ ci kaw doj ya al ghawasatu sous-marin ba sous-marin xam ay gaal yoo xam dañuy nóor ci biir ndox mi daa bàyyi ko ci xaasa xuus na sous-marin da ngay wax taxtal maay nekk na ci roon ndox ma as saboratu tableau tableau bi nga ne amaama talamisi nekk ci kanam élèves yi as saboratu amaama talamisi al xushu picc ma man nga ne fawqa shajarati nak ci kaw garab ga nga def al mihras machine ba digënté mak ak tawrayn yar yek nek al mihrasu qalfa tawrayn al hafu jéggle ga da nga ci tek hindal maqdurati nek na fa man nga fayu manam jéggle bala baax nga mëna fayu ba nopi nak jéggle baña fayu at tamrin at tasiya nga xol ko def ko at tamrin al hashir xol ko def ko at tamrin al haadiya xachar moom incha allah kompo la ukutub bindal mawduhan ab siise incha iyan bi ko jóg kompo mu jasan ba di buñ gàttal fi fawaidi naari ci njariñi sawara wa madariha ak ay loram gaay su tastanu ci foo xam day làmboo ijaabatu ko sa tontu xalaa jubalin ci ay jumla waaqixat ñu aji tàbbi axbaaran mbir mu ñu xabar wa saint nga dimani ko fil kitabati ci bind ga bil hanasir ci élément yi al atiyati ay dik élément yi moy xéet yi al idaatu ak leral ak tadfiatu ak nugal moy tangal takwin al bukhari formé ciola formé sahar si jolle fa'idatuha njariñam fi shinahat ci xéeti xaralay ak tahyul athimati togg ñam ya tadmir manasib ak yàq ci kër ya bokk na ci lori sawara isxaaqul arwaay ak faat rooya daa bëgg nga def tem boo xam ne yaa koy susul sa bopp te gàttal ko waaye da nga ciy wax njëriñi sawara ak ay lorom ndax xam nga sawara am na njëriñ ci wet waaye am na lor ci wet daa bëgg nag ci ni ngay waxee sa wax jooyu na nga ci indiwaale ay jumla yoo xam dañuy nekk xabar ndax da nga toll ci fi ñuy xabare jumla mu bëgg nag nga andi ci biir ay jumla yoo xam ne ay xabar lañu mu ngir mu dimbalee la ci nga def ko mu indi la ay baar yoo xam ne yenn yi njariñal sawara ci lay dellu yenn yi ci lor lay dellu ndax leeral gi mu wax njariñu sawara la nugal gi maanaam tàngal gi bu dee jamonoy sedd njariñ la formé cóola ak ni ak ni nga koy yittewoo rek ci xeeti xarala yi ñam ak togg ñam xam nga ni bokk na ci njëriñal sawara waaye bokk na ci loolu nag ak lakk dikk yàq lépp kër gi mbaa bitig yi mbaa bokk àgg sax ci faat bakkan ak tamrin ak taaniya xasir moom dafa nekk fi inra bi bu jëkkee namoo dajun ak zulmu tooñ martaxuhu ak forukaayam wax yi mun aji bon la tooñ daal bu njëlbeen nga neexee it ak naqari akum mbon lay mujjee ak zulmu mubtadaun la marfooxun bi dammati martaxu ba tey mubtadaun la martaxu mubtadaun taanin la marfooxun bi dammati wal haa'u mudaafun ilayhi la mabniyun ala dammi fi mahalli jarrin soo nee martaxu hoo hoo bi day nekk mudaaf ilayhi jibinaa ko ci daam ba noppi nag mu nekk palaasu jaar ndax lim nekk mudaaf ilayhi wax yi mun nag mooy xabarul mubtada isaani marfooxun bi damati wax yi mun mooy xabar yi martaxu ji nga mujj wax muy mubtada mu ñaareel mi wal jumlatu jumla ji nag loolu mubtada yi tàmbalee ci mubtada ma asaani mi ñaareel wa xabaruhu ak xabaram fi mahalli rafi nekk na ci palaasu rafaa xabarul mubtada yi mooy xabar yi mubtada ma al awwali ma ay jëkk neena boo boolee martaxu waximun mu jumlay lisim jooju nag mooy nekk xabari ak zulmu ji nga njëkk a indi ak boo ne al wisaadatu ngi nga naay la fawqa sarir nekk na ci kaw lal ba ngay wax al wisaadatu mubtadawun marfuun bi dammati fawqa boobu nag zarfu makaanin la mansuubun bil fatxati te waxuwa xabarul mubtada yi fawqa jooju zarfu makaan la nasabi fataa tey ci wax moom ci moom loo xam bi daanoo mooy xabari al wisaadatu bu ko defee nag asariri mudaafun ilayhi la majruurun bil kasrati aari bil jumalal aatiyata kon nag léegi ixraabal jumla yi ñu bëgg a wax al jaahilu aji réer ja yaa tamidu dana sukkandiku yaa tamidu ala maalihi ci alalam ku xamul dara day defee ne alal dara la bu amee alal daal cay sukkandiku defee ne am na lépp alxadiqatu charde ba atmaaruha ay meññatam yaa ni xatun aj ñor la ngi waxan aj yunt ci wolof waaye mooy ñor al lu lu wurus lu luwa minal baxari day tukkee ca géej ga ci géej lay bàyyi ko al junoodu soldaaya xawlal xisni ña nga nekk ca lëwër tata ba wala sange tata béré bu kaaraange daal xabaru nawaasixi xabari nawaasixi yi xiina yakkoonu ci waxtu woo mi nekk jumlatan di jumla aw shibha jumlatin mbaa mu yunuru jumla nawaasixi mooy kaanaa ki bokkam ak innaa ki bokkam seen xabar mën naa bañ a nekk benn part nekk jumla yi lëm mbaa boog mu nekk lu nuru jumla des naa def jumla muy seen xabar mbaa sipp jumla loolu na ngay jàngale ci bunt bi mu njëkki al amtila kaana nekkoon na al maridu aji tawat ja yetta àlla mu di metitlu aji tawat ja mi ngi doon metitlu kaana nekk kaana nekkoon na ashitaaw faslu shitaa barduho seddam ba shadidun aji tar la maanaam bañ tolloo ci faslu chita sedd ba daa metti woon loolu kaana nekkoon na almaaw ndox ma fil koo bi ca kopp ba ndox maa nga woon ca kopp ba kaana nekkoon na alxaarisu gardien ba xalfal baa bi ci gannaaw buntu ba ki doon gardé ma nga woon ci gannaaw buntu ba asbaxa xëy na attaayiru njanaaw wa yu xan nii di wayantu asbaxa xëy na alwardu fleur ba raayxatuwa xetam nga jamilatun aji rafet la mooy aji neex la fala fala dafa xëy rek xet gi neex lool asbaxa xëy na alkaslaanu aji taayal ja fii xayratin ci ngëlamte ku taayal ki daa xëy rek ngëlam lool jaaxle lool daal asbaxa xëy na ak tallu masay ma fawqal azhaari ci kaw tóortóor ya taw bu ndaw bi muy wicc wiccal bi daa xëy rek dal ci kaw tóortóor yi innal mujjidda naka aji farlu ja yan faaw dana jëriñ nafsahu boppam maanaam ki farlu boppam rek lay jëriñ innal walada naka xale ba siinatuhu waajtaayam adabu mooy teggin maanaam gone daal yi amee yar ki teggin mooy waajtaayam innal xayaa naka kersa minal imaan yi bokk na ci gëm innal xukma naka àtte ba baxda tajribati nekk na ci gannaaw nattu ga nattu boobu nag mais innal xukma baxda tajribati tajriba mi ngi bàyyi ko ci jarraba yu jarribu tajribatan maanaam loo xam na nga koo seet bu baax a baax gëstu ko ba am ci expérience ak ay dafa wax ni mbir bu la nga caa mën a at dëgg-dëgg da nga koo seet ba xam ko dëgg-dëgg door caa mën a atte ci saxal ca dara mbaa dàq ci dara laxal lal xaa iba ndax lee aji fàddu ja mel ne ka tukki woon yaa dana dellu si laxal lal imtihaana ndax lee examen ba as ilatuhoo ay laajteem sëxlatul muy aji yomb xëy na examen bi lañ cee laaj laaj ñu cee joxe du jafe laxal la muhammad ndax lee muhammad filman si li nekk na ci kër ga laxalal mibraata ndax lee taay ba yettukaay ba fawqal kursi yi nekk na ci kaw toogu ba xëy na taay ba mel ni taayu crayon bi nekk ci kaw toogu ba albaxsu xarafta xamoon nga fii darsin ci ab leçon xabla hasaj njëkk bi ne ànd xabaral mubtara yi nag xabari mubtara ma kama yakkoon ni muy nekkee mufrad di mufrad ba tey yakkoon dana mën a nekk jumlatan di jumla way sipa jumlatin ak lu mel ni jumla nee na leçon bi jiitu woon bi xaman nga ci ne xabari mubtada ni mu doone mufrad noonu lay nekkee jumla mbaa lu mel ni jumla wa ida baxalta ndem gëstu nga fii haadihil amsilati ci lay misaal xala nax yu ci anam nga allësi ga nga xam ne rasam naahu bindoon nañ ko rëddoon nañ ko fi darsi ci leçon ba asaabiq bi aji jiitu xarafta nga xam ne an na xabara kaana naka xabari kaana wa asbaha ak asbaha wa xabara inna xabara inna wa laxal la ak laxal la kama yekkoon ni kii nekkee kulun képp min huma ci ñoom ñaar mufradan di mufrad ba te yekkoon dana nekk jumlatan di jumla wa shifa jumlatin ak lu mel ne jumla nee na boo seetloo bind bi bu baax da nga ci xame boo seetloo bind yu baax na nga seetlu woon bële da nga ci xamee ne kon ba tey kaana ak i bokkam wala inna ak i bokkam ku ci nekk seen xabar mën naa nekk mufrad waaye mën naa nekk jumla mbaa lu mel ni jumla te bañ a nekk mufrad loolu mën a nekk la waqad iqtasarnaa gàttañ lu nanu nag xalaa fi alayni ci yaari fixal min kaana ci kaana wa axawaatiha ak i mbokkam wa xalaa xarfayn ak ci yaari araf ak ci yaari araf min inna ci inna wa axawaatiha ak i mbokkam wa axawaatiha li ànd naka ngir naka yow tastatiix da nga mën an taqyisa nga xiyaas xalayha ci ñoom baqiyatul afxaali ya des ca fixal ya wal xuruuf ak ak ya des ca araf ya an naasixat yi aji fool li mubtada xabar nee na bi ni misaal fii danoo doyloo rek yaari fixal ci kaana ki bokkam bàyyee ci des innaa ki bokkam tey ñu indi ci yaar rek bàyyee ci des ndax boo xamee yi mën caa natt ci ca des maanaam boo xamee yaari fixal yi misaal ci kaana ki bokkam mën caa natt yañ waxut xamee innaa ki bokkam yaari ñu ci tudd mën caa natt yañ tuddut yaari fixal yi indi moom mooy kaana ak asbax dong la indi araf itam mu indi ci inna ak laxal la rek léegi nag dane boo xoolee kaanal maridu yata allamu da nga gis ne al maridu mooy ismu kaana yata allamu fiil mudaarif marfon la faahiluhu damirun mustatirun taqdiruhu huwa wal jumlatu al fiiliyatu fi mahal nasbin xabaru kaana boo ñëwee ci kaana chitaaw barduhu shadidun foofu moom jumla jumla bisim la ndax barduhu jooju mubtadaun la marfon bi dammati wal haa'u mudaafun ilayhi la shadidun xabaru mubtada yi marfon su ko defee nga ne wal jumlatu al ismiyatu fi mahal nasbin xabaru kaana waaw ba tey boo xoolee kaanal maaw filkoo bi ngay wax filkoo bi jaarun wa majruurun wa huwa xabaru kaana xam ne kooku fi fu jumla la xalfal baa bi xalfa dorfu makaan la man soo bil fatxati wa huwa xabaru kaana ba tey kon xabar bi foofu si fu jumla la ni nga xoole kaana nga xoole ko asbaxan ndax moo ñëwaat foofu inna itam boo ne inna xarfu tawkiidin la wa nasbin al mujidda ismu inna mansuubun bil fatxati yan fahu fiil mudaal marfoox la bil dammati faaxiduhu damir mustatir taqdiruhu huwa ngay wax wal jumlatu fi mahalli rafin xabaru inna xam ne foofu al jumlatu jumla fi xal la waaye mooy xabaru inna di ko topp nag boo ne al walada ismu inna mansuub bil fatxati wax siinatu mubtadaun la marfooxun bi dammati wal haawu mudaafun ilayhi al adabu xabarun la marfooxun bi dammati wa jumlatul mubtada wal xabari fi mahal rafin xabaru inna maanaam jumla ne siinatuhu al adabu mooy xabari inna ji soo agsee ci inna al xayaa min al iman ngay wax ne al xayaa mooy ismu inna mansuubun bil fatxati min al imaani jaarun majruur la wa huwa xabaru inna xam ne xabar bi foofu sipp jumla la fi bax da itam day saraf ba tey te mooy xabar inna ba tey kon foofu xabar ji sipp jumla la ñëw ci alqaaxida takk-takk bi xabaru kaana xabari kaana wa axawaatiha ak i mbokkam wa xabaru inna ak xabari inna wa axawaatiha ak i mbokkam kama yekkoon ni kii nekke kullun kenn ku ne min huma ñoom ñaar mufradan di mufrad ba tey yekkoon lay nekke jumlatan di jumla fi'liyatan bi ko jug fi'al wa jumlatan ak jumla ismiyatan bi ko jug lisim wa shibha jumlatin ak nuróog jumla waaw loolu mooy takk-takk bi maanaam kaanaa ki bokkum seen xabar ni mën a nekk mufrad mën naa nekk mën naa nekk jumla mbaa lu ko nuru moom jumla ba tey innaa ki bokkum seen xabar ni mën a nekk mufrad ba tey mën nga ne léeg-léeg mu nekk itam jumla jumla ja mën naa nekk jumla bi fi'al mbaa jumla lisim ba tey xabar mën naa nekk sipp jumla sipp jumla mën naa nekk saraf mbaa jaar ma jëloor ñëw ci tamarin ñëw ci at tamarin al awal bayin leeralal nawxa axbaari kaana façon xabari kaana wa axawaatiha ak mbokkam wa inna ak inna wa axawaatiha fil xibaarati ci wax bi al aatiyat bi aju dikk wax bi bëgg a dikk na nga ci xool boo gisee kaana mbaa ku bokk ci bokkam wala inna mbaa ku bokk ci bokkam nga xool xabaram ne xabar bi day nangam la façon xabar bi nangam la maanaam façon xabar bi mufrad la wala jumlay fixal la wala jumlay lisim la wala daraf la wala jaar mu juróom la kaana nekkoon na annaasu nit ñi yadun noona di jorot ne an na fànn tayaraani naka xaral ak naaw ci jaww ji najaahu ak réussiram ak réussitam mustaxil aji jomb la wasaaroo te ñu mujjoon yas xaroona di reetaan min kulli man ci képp koo xam ne ya dallu day yendu yaamalu di liggéey li taxqiiqi ngir ak réalisé maanaam ngir ak wóor ngir ak amalam di annahum ngir naka ñoom yaraw na dañ daan jort ne dañ daan gis ne am na insaan naka nit asmuhu ak dogoom mahdood lu ñu limité la wa annahu ak naka moom lan yesaala du mën a dañ xalaa xaalati yi ca mbiram ma allati wa nga xam ne xulixa sàkkeef na ko xalehaa ci moom maadaama li fekk sax na lam yux laq bindeefu ko maanaam sàkkeefu ko kaptaay yi mel ni aw ñanaaw nee na ca bu yàgg dañu yaakaaroon ne jekk di xalaat naaw ci jaww ji doomi aadama di xalaat naaw ci jaww ji bëtu ko mënta nekk bi ma saalis koy jéem dañ lay retaan ne ah doomi aadama doomi aadama dong la yàlla bind ko mel ni picc muy naaw te mënta fexe fexe ba def lu ko yàlla melalut neen loolu bu njëkk loolu lañ daan def xam ne boo koy jéem ñu lay reetaan walakin al muxtarihin waaye way fent yi maanaam fentkat yi amaaluhum seeni mi bët bàyyi dat aju sori la fa saabaroo te ñu sax ci góorgóorlu xataa tàmm bu mat najaaxul tayaraani pajuk aajog naaw ci jaww ji wala nga ni réussitug naaw ci jaww ji wa asbaxate mu mujj min ahsani wasaa'il intiqaali di bokk ci gën jaar rafet yi moyen ni toxu wala moyen ni transport wala transit nee na ñi nga xam ne ñoom dañuy war ay xalaat te sawar te góorgóorlu te te duñ dàcc ñoom ñoo sax rek ci am yaakaar di góorgóorlu ba mujj ñu mën